arbitre bi waay sifflé pare nga pare na pare nga pare na pip mu dem waaw waaw diggante Dasso écurie xam sa cosaan ak Fils de Gora écurie wa Fadjiri Dasso moo am mu am lu bett li écurie Fils Fils de Gora man dégg naa écurie Fils <laughs> nekk écurie Walfadjri moo jàkkaarloo ak ñun mbër yaa ngay léewtoo di dem si witu saaku yi waaye xam naa ne léewtoo bi du yàgg ndax foog pour fan yi taxan naa si buntu mën a am war ñu jàppante kenn taf sa morom wala kenn jabaxa sa morom wala kenn mbotti sa morom daal soon waaye day cokkaas loolay cokkaas daa ah, soo song na songoo baaxul yee Fils de Galla Fils Fils de Gora génnal loolu mooy soot pa bu ko raat bu soor loolay <laughs> soor daa soo ma bëggoon dugg doon doo du cokkaas waaye ndekete loolu ay nax la sa tànk yi lépp woon jëm fi sa góor génnal buntu bi daf koy tëj buntu bi dañ koo tëj ñaari mbër yaa ngay léewtoo Fils de Góor a ko cok tak Fils de Góor cokkaas na Mour calme toi loolu ma faa waxoon sànq calme toi <laughs> cey lii du combat. ku ñu fi indi tey mooy Cadior production dimanche 16 octobre 2022 fii ci arène nationale ñu nekk ci sixième combat bi ab bi siflen ab bi doo may ma àggale doo may ma àggale lii yàlla abi bi na defal la neex abi sifflé waat na ba commencé waat Kajoor production moo ñu indi bu tolloog dimanche 16 octobre bu 2022 fii si arène nationale si grand bi ñu am Jackson écurie Mansour Mbaye ak écurie Hercule écurie Grand Médine bi ngeen jàkkaarloo moo ngi si diggante Ganso écurie xam sa cosaan ak fils de Gora écurie Walfadjri Ganso moo ñu woon ginnaaw fils de Gora moo ñu kanam ñaari mbër yi nga lew too dóorante leen kay cokkaas am na Ganso cokkaas na ko Ganso na ko isaani baa ngi ne teg diwal la ngay teg tey géwal tey géwal bu demee ba tar yéen la ñuy dégg waaw bu méttee yéen la ñuy dégg bu bëggee lu xumb si yéen la ñuy dégg buñ bëggee dégg-dégg yéen la ñuy moom géwal wala yéen géwal ab bi sifflé waat na leen seen cinq minutes jeex léegi maa ngi bees wax naa leen cinq minutes yàggatul ku mën sa duma Darou Sow fils de Gora ñoo ngi lewtoo ñoo ngi avancé ñoo ngi avancé mel ni kuy waaj a si sàkku yi bu ngeen yeggee abi dee leen delluwaat si di géew bi te loolu perte de temps la eh Darou dóor na dóoru wala la doon jokkaas bugoon dem Darou Sow xelam yëpp si tànk jëm Daar soo xale bi yëpp tànk yi la jëm yàgg yàgg waaye fils de Góor institut si bàyyi eh Daar soo na da mbay dem te demul noo ngay gis ngeen sama cameraman bi xale di jël ngeen koy gis di ko seetaan fii si Wassare Lamb gaaw leen seen lamb da war automatique mel leen ni comme sama kaw man Khalil automatique eh Fils de Gora cokkaas daa soo ngay déglu Fils de Gora cokkaas waat na daa soo ngay dégluwaat Darso moo xees Fils de moo ñuul <laughs> waaw Darso ñam na ko soo ñam na ko laal ko droite sëgg eh tànk bi waxoon naa waxtaan na ko lu ma la waxoon xelam ma si yëpp ma ba waxoon naa leen xelam ma yëpp ma ngi ba dóor yëpp ay kaf la woon jël na ay tànkam mel ni koy plaqué waaye loolu du plaqué dajale ñaari tànk yi ne ko bépp ci suuf su ma ko ma ne xal li waxal automatique xoolal ma jëli bi it ngaa dama jëli bi ma jëli ma jëli bi ralanti ko <laughs> ralanti ko automatique. loolu laa jëfee waaw. tooni ragaluma ko. waaw ji am man mbaru mbabat laa dama mbabat ba waaw. maa waaw. waaw. Mhm. Mhm. lu neex. Mhm. no parce que moom laa doon déglu. yow jëli nga fils de Gora dégg nga li mu wax moom mooy ñëw ñëwul benn yoon xaar naa ba soon sonn ñëwul musuma bëree nii taxaw xaar liir liir. non man dama koy remercier rek Baye Fall la nag champion la. waaw di ko ñaanalaat bu amee combat ku dul ku dëkku Pikine yàlla na ko yàlla may ndam. waaw amul solo. waa ñëw leen kër gi waa tali moom moom menuisier yi aw ma seen fay barki Serigne Bamba ak waa ginnaaw raay ak Ibou Xay Serigne Mami Xay ñoom ñëpp maa leen di sant bilaay walaay jàpp nañ ci bu baax